de presse. yëgle ndëppalam raxas ci wàllug yoon président Bassirou Diomaye fay daal dikk nag ak wàllug magistrature am bu yees peq di baral jéegu yu jëm ci wàll gi waaye tamit ñoo xamante ni dajaat nañu leen ci seen i toogu ñi ci des moom dañ leen daal di bamax ñi daanu këlëpp yi nikaay gi di bees bi le jour ne nag yëf yi gaaw na lool ki nga xamante ni moom moo di maître Ousmane Diagne mu nga dal di fas yéene taqoo rek ñaar ñi li doon Ibrahima Ndiaye waaye tamit Moussa Thiam ci wàllug parquet bu Ndakaaru bi Abdoul Aziz Diallo bis ni kii le ni ne mooy doyen des juges waaye tamit lii nekk ay daan yoo xamante ni yu daal di toftalantool la ci Oumar Maham Diallo Mamadou Seck ak it nag ki nga xamante ni moom moo di Abdou Karim Diop bu dee loolee ay daan la moom lii nag moom ay bong-bong yu leen daal di saxal ñu ngi xam ñi mu nooy nepp te dana jàll ngir ñu reesal ko ñooñu nag mooy saaba si fay ak ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Racine Thioune waa APR ñu nga taxaw ci wet di xat raayu ne li nag nekkul lu dul ay tegtal la ki màndarga te ëllëg bu sottee wàllu yoon dana tekkeeku ci seen kaw andi leen ay jafe-jafe pëccaxoo gi ci wàllu magistrature bi yéenikaay groupe Futurs Médias bi xëy na ci daal di ngoy ak conseil supérieur de la magistrature mi daal di tàkk ci diggante ay neexal waaye tamit ay daan ba ci sax li nga xamante ni moom moo di mbirum caaxaan di la rëm Sénégal guddi yu ñu toll ma nga daal di sukkandiku rek ci ay xarkanam yu yees yu ñu taxawal ci ëttu atteekaay bi lii mën a tekki ne wàllu yoon léegi tey jublu di rëbb ñi nga xamante ne ñoo wàllu ko askan wi journal bi seetloo ci geneen wàll ga daal mboolem magistrat yi nga xamante ni doon nañ jël ay dogal yu gënal waa Pastef tey jile fay nañu leen bor bi ba mu mat sëkk ndax jot nañu li nga xamante ni moom moo di ay neexal ak seeni buño mel ni kuy naqaral ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa APR ak fayantoo nar a dox ci diggante nguur gi fi nekk ak ñi nga xamante ni ñoo fi daal di bàyyeekoo les échos yi ni kay ni li am ci wàllu ko yoon doon pëccëxoo gu jéggi dayu lool ab xare la nguur gi daal di takk nag ngir rek daal di fayantoo ak li nga xamante ni moo am ci mbirum Maham Diallo ak Abdou Karim Diop Mamadou Seck ñi ñëpp ñi taxañ leen yóbbu leen ci diwaanu ko Tambacounda Le Quotidien moom ak coow loolee yëpp dafa xëy rek daal di bari yoonu boppam ak dakkalug contrat ci diggante ak waa POWA Sénégal nag dana daal di wanaasu ndox mu wexat ak xorom ndaw li nga xamante ni moom la ñuy yebaloon ci Riyad du kenn ku dul Mary ñaan ay tànkam nag pënd nak suuf waaye amul lu ko gënal ma jambal jaañ bi ne Mary Teuw Niane gisul sax takkanderub buur bi ndax benn Salman dalal lu ko ca palem ba tolluwaayu ko laks dangi ci réewum Sénégal wee di xel yi ak le soleil yi ni kaay dogal yees askan wi journal banque sukkandiku di firnde lekk tolluwaayuk accident yi li nga xamante ne nag ma ngi koy def ni njaax rek tiitaangi dal di feesal jànkoro ko oto ak càmbar yi ñu ci jot def gis ne kon wàllu ko l'accident yi daal càggantek doom aadama yi mëne su ko ci génni waaye tamit bariwaayu ko oto école yi te ñu ci ëpp amuñ kayit yu war baa ñu ñàkk jaar ci yoon waaye tamit di jalgati lépp loo xamante ni moom moo di charte yi ci wàllu dem bekk dikk bi lii kon moo indil jafe jamono ji réewum Sénégal wàllug mbay mi tamit namm na ci xalimam jëmale doon journalu l'Observateur Kolda gi mu ne lu toll ci juróom fukki ton ci àpp engrais bu ñu nattuloon baykat yi ci ndimbalul nguurug Sénégal la ay defkati ñaawteef sàkkal pexe waaye nag loole mujjul ontu ndax engrais boobe ñi jëmale woon ci réew ma Guinée mujj nañ ko teg loxo